Vito Cocktail, une explosion de saveurs dans une même et seule bouteille fruits Nous ñu sommes ko Sénégal si anam a sel celle naturel jus Vito pour s'en goûter dormi, collation au bureau ba ngénte manam jus orange ngir mailen tiawarte actonus. ak tonus jus carasol, lol bar, lol, lool si yaram ak ay am solo gingembre bi moom dafa bar, lool si góor ak ay itam si organisme buy bi day bar, toy, si yaram tayit jus Oh, oh dina yok s'en katan bolé ci vitamine rek la ñi bëgg so naturel nak Vito pour fête bu monti te baax lool si yaxu gune ak mag lépp nak emballage civilisé Tour. jus Vito da am choix et so existe en bouteille de 1,5 litre et 33 centilitres Vito fabriqué par Groupe Cefas à Dakar à la cité Cœur Damel à côté de la mosquée téléphone 77 241 06 06 daw amul arrêt ñànk mooy livreur day daw amul arrêt ñànk livreur day daw amul are, ñànk livreur day daw amul are, Manila la am na fépp am bu rog détail yeah un kilo am 500 grammes mani amul du livre si day daw lekk ñànku amoo benn temps yow eh day daw rek waaw waaw dégg naa amoo arrêt nag dëgg la. ah bay bay looy def nii yow. Ah, ay eh, atal ko ba def génn. Eh, bu bu bu too de bu too de bu too ko dafa la koy yaam daa koy yaam. waaw xam naa ne dafa toog xanaa bu fi nekkul mënu maa toog. ñu waxtaan non non non koo dafa nekk daal nuyu ci yaayam. moom moom koy yaayam rek koy yaayam rek moom moom moom bu liggéeyoo koy yaayam lay ne. waa ñànku yow tamit. wul walaanu. waaw wuy ma nag xoolal ay ay gis nga nag wax ay wax day. waaw waaw waxati bu seen ma laayaate bi bàyyi la def ma wélu ma de ay fay laayaate yi kenn du ko taamal. waaw wax nga dëgg de. waaw moom kenn du ko nekk yow. am arrêt. waaw waaw waaw moom ñokkali rek. yow doof amoo arrêt nag. Euh, waay ku wélu kenn du ko wax dof. man waxuma dof ku wéerut de ko ne a ah, ah, ana dof ak cag-cag. am nga ne wér nga waxew ma foofu te sax na ñaa ngi wax dëgg neex yàlla man a yow nii ñu débuté ni ma neexu ma xool ma. man ma xaaral man daa bëgg jigéen bu service. jigéen boo xam ne ba bàyyi jigéen boo xam ne di toog seen kër koo koo koo naaj tàng ñëpp ñiy liggéey ñiy liggéey ñi liggéey toog u kel bu baax toog jàpp ba seet yor seen kër naa safulaa safulaa safulaa safulaa safulaa maanaam weeli paase bàkkaar yëpp. pour yaa jégale mais yow yow wul wul wul wul lu leer pour toog toog assis devant toog. oui ma oui ma yaa ngi def erreur nag ñaan ko man suñu kër mu ma faa toog nag jubóo ma kenn suñu waa kër. ah la may pare yaa si kaw. ñoom ñoom non non man def ak ñoom xam naa li ma la wax te man sama wër fii la sama xaritay jaay fii am naa droit ñëw toog fréquenté ci moom. dàq ko waaw moom moom waa néew fi mais yow yaa ngi fi ñaan ko te man sax su ma sañoon yow ngay ñëw kër ga ma lay taajal ay ndog des fois ñu ànd dem may nga di lu toog xam nga genre yooyu man daf may neen ñàkk maa bëgg ngaa ñam xëpp. waaye bàyyi naa la waaye lii la la nii yow da ngay wat sa sikkim bàyyi naa la waxal li waaye damaa mën a wat sa sikkim. voilà. waaw wuy ma man jàmm laa bëgg ñëwaat ak sama diggante man ak yéen. des fois mu ma indi ci yu baax yi nag dëgg neexul xanaa yow bëggoo jox nga ma ju mel ne ma. eh eh. mais xool mee sax. eh eh def ma ni eh waa dëgg may ko. ah bëgg wala bañ ñànku bëgg nga wala bëggoo ba tey ubbeekoo sa géem mi. ñanku njaaye waa xool ma dangay wax man lii man bu ma la duma muma bay ba ngoon eh bay ba wala bu góor bay ba ngoon ma tontu fekkee fekkee saafaale wul fekkee yow wóolu ni nga ñëw di nette fii laa bëgg nga di nette yi waaw mën naa toog xaar sama xaalis dañaa ko danga may dàq nii dama lekk te fi ñu naa ko ñëw nga fi moo gëm ma ma ay tàmm ay fréquence yi tàmm ma ko waaye léegi jaara kër ga damaa bëgg ñëw da lay da lay def sama fi daanul Wanda ma sama sama sama lab fii lañ demal. waaw guddi ñëwal de. waaw baax na. guddi ñëwal waay naa fa jaar demal. d'accord bu ñëwee ne ko jaaroon naa fi. guddi foofu day laayaale dem ba foofu bi coob am problème laay de. te loxo bi noonu leen neexee nii. yoo fa jaar naa fa jaar ma nga xam ne maa gaa nelaw tudd foofu nelaw yow suba teel. waaw. <laughs> yàgg nga. yow wóor nga teel nga xëy si di. yàgg nga yàgg nga maa ngi wëlu ay livilations mënumaa bàyyi place yi nii nga nga te toog foofu rek. ah macha allah tarkaal ma ne lii de boo ko def dañuy jubóo. yàgg nga de yaa wóor nag yàgg naa mais dafa am lu ma doon lijjanti rek. Mm, looloo tax ma yàgg fa. maa ngi wala day yóbbu livilations. maa ngi ñëw léegi nga yóbbu ko. maa ngi jéggalu. ñaa ci loone nag. baa woor nga. baa woor nga. tey. da indi dara. sa tontu bi yéex na de. loo indaale. ah li ma indaale mooy comme dab rek li ma ñëpp xamee. de indi woo lekk. ku wóor man nan la maa ma yor daal. kon damaa wóor de. kon nii. maa wóor. ah ñaaw. sa sa boy bi ñëwoon sa femme bi. kan fa benn faa nga fem bu fi ñëw fii di wax wax yi bañ waaw ñëw na fi wax ba noonu naa toog maa ko wax dem ba ngoon ba mu ñëw tamit ndax nga dàq sama ma bi yow tamit doo bàyyi mu ma ma ma maa compété moom nee ma mënu compété ma mënu maa moom moo tax mais mais moom waxu ngeen ko posé mënu ma ko bàyyi mu toog fii dafa wax ngeen ko posé yéen waaw il yow mi sëgg nga de ñaan ko il a dem ah man maa ngi commencé tiit ci seen biir de tax joxaale ma kii tout taw boo mécanicien ma may dafa calculateur

waaw waaw nga joxa nga joxaale ko kii ndaw yi parce que pour xale yi la bu zi zi ndaw joxaale ko yi yu yi cinq yi zi ndaw yi cinq ah. ak ak benn pot benn pot soow ne daa ay gan dana ma peut-être dañu woon naa teel de ah, ma demoon ma baabala baabala la ilaha illallah baabala dugal naa bisaab bisaab dugal naa jijeer waaw dugal naa buj waaw dama ma dugal yi ndaw yi ñaata bi bii defaat deux ma defaat yooyu bii defaat deux en bi dafa ba bisaab bi xonq bi doo la tekki boo def cocktail bi doo ko cocktail doo waaw bii bisaab bi la bis bisaab bisaab ma bisaab la am ah, dugalul bii rek đi đâu đấy đấy, đấy, đấy, em te daaw lekk amul ale. amul ale rek. te daaw de yu ndaw yi ñaata. yu ndaw yi cinq cinq cinq. waxul ci soow bi. soow soow ok soow wax na benn soow. soow ba nii ma tékk rek dafa nii ndaw yi. ma ta nekk moom laay wute am trois yi nii. soow moom wóor de. dégg nga maa jaay ci magasin bi. waaw jëlaat moto bi dem maa xam ne jaafa. waaw wax boobu booy kayitaal bi. boobu boo fekkee kayitaal bi kayitaal wu ko. maa ngi dégg yow. waa dama waaw su ma ñëwee yóbbu daal. yaa wóor na càq càq. amul ale day daw lekk ñokkal teef. yow laa woon. alors ak ñokkali naa du xoteel. sele set wóor am nu bi jinjeer bi sa cocktail neex si weeru koor soow bi soow bi soow bi buy soow bi sii bi sii bi sii bi ñamal sii bi